inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa man yaxruj min beytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi summa yudriku mawtu faqad waqafa ajruhu ala allah inna lazina saarahu li xidmati wa lahum diyaara wastal jannati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu surtout Sëriñ Habibullahi moom Cheikh Mouhamadoul Fadal ci kanam sëriñ Habibou di yëkkati kàddu ci tur Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekk sëriñ Touba moom mi nga xam ne liggéey bii nu nekk di ko liggéey moom moo nu koy liggéeyloo suñ borom mi dogal nag dogal ci ab dogalam tey jii am lu xew ci biir liggéey bi xew ci ñooñ liggéey bi di ay bokki taalibe yoo xam ne dañoo jugoon jaayante ak sëriñ Touba. ñëwoon ànd ak nun di liggéey sëñ Touba wa yàlla doogalee nag nu ne ci liggéey ba sun doom mi nga xane lu am mooma te sañ te man tey def tey dindi te kenn sañu ne ko lu tax nga def mu def ci coobareem ak kattanam ak sañ-sañam jëfandikoo ci ay jaamam la ko ca soob te muy lum sañ te du tàggu kenn te waxoon na ko ba yàgg nag kullu nafsin saa'iqatul mawt allazi xalaqal mawta wal hayaata kon mbir la moo xam ne mu baaxu am la dikkiin yi nag mooy wute ak saa yi dikk ak ni muy dikkee bu yàlla dogalee nag mu am ci takkusaan bi nuy woo Sëriñ Habibu nu bokk toog nu xamal ne nu am nañu yàlla wàcce ab dogal seen kaw booba sax xaj na dogalu faatu ak séegut waaye dogalu jëyee ak si na ban ko yëgee tàmbali di ca ñaan nis ku si lan mu wax xamal la ca xew booba itam la nga xam ne moom la ab jaam man daal dinañ koy tàmbali def muy jug dem ci ki nga xam ne mooy sunu kilifa di Cheikh Mouhamadou Mountakha ko ko bii ko waxee li mu mooy ñooñu dañoo saxit saxit mooy ku dee ci xarab lislaam googu kàddu rek doy na sëkk dañoo saxit la wax joxe ak ñaan yóbbante nu ci seeni bokk ak ñaan yóbbante seeni bokk dalu xel yóbbante seen seen bokk massaw yóbbante ñu seen bokk seeni bokk am njaal ci kaw loolu nag Serigne Xëy bu ak waa Touba ca kanam gépp di ci yëkkati seeni kàddu ginnaaw boo xamante ne ki moom liggéey bi moom dem nañ ko ba yëgal ko xew ba noppi Touba ci kanam di xam la ne li xew day moom yàlla suñu moo xewal te di ko xewal ci ku ne ku mu ci nun ci waxtu wam ko sàkkee ndax ku ne ba mu la bindee la la bindaale sab dikk kenn ku nekk bis nga fii nikk alhamdulilah ba alamin nag ñii seen bis dafa agsi waaye mu agsi ci ak seen wu taw feexe ak seen wu ànd ak ndimbalul yàlla ndax xëyal sëñ Tuubaa sa bakkan des ca mëneesuta ëpp yaakaar amee su am yaakaar jug ëpp fañ jëm kon mbir la mu diis mbir la mu bette mbir la mu mett waaye nag mu sante ko yàlla ndax kenn du wees sa suñ demee wutoon ci nii it danañ demee ci neneen waaye bisub dem moom kenn du ko weesu li kulli ummatin ajal fa isa ja ajaluhum la yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuun kenn ku ne sëb dig du avance minute du retard minute waxtu dig ba agsi képp képp ca ngay faatu ku mu ci noonu rek loolu lay nikk kon ñoom seenu digg dafa teew alhamdulilah bi alamin nag ba mu teewee ci fekk leen ci loo xam ne mëneesuta faatu ci lu ko gën mëneesuta faatu ci lu ko ëpp yaakaar ko mëneesuta faatu ci lu gën liggéeyal sëñ Tuubaa kon ñi nga xam ne yàlla dogal na lii mu dogal ci ñoom noon day ay jaam rekk lan dañuy delloowaat lépp ci yàlla mooy li ma ubbee te suñu borom wax ne lu daal ci seen kaw na ngeen ko wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye nag laaya jooju ma ci teg nga ne suñu borom daa wax ne képp génn sa kër dox wuti yàlla ak yonente bi di def loo xam ne yàlla képp a tax ak yonente bi ba faatu fekk la ca la nga bëggoon am nga ko ndax danga nga jot sab yoon Sëriñ Tuubaa itam wax ni ne suñu borom ñëpp ñi nga xam ne gaaw nañ buñ ma wootee di ma liggéey danañ gaaw jëm ca liggéey ba na nga leen defal ay kër yu bari ci digg àjjana kon nag ñii suñu xel dal na ci ñoom ndax kat ay jàmbaar lañu woon moo leen taxa seen seen bakkan des ca kon ñi nga xam ne ñooy seen wayjur ñu ngi leen di mastaw ci turu sëñ Abibu ak turu kanam gépp di ànd ak ñoom tiis wi di leen xamal ne bay boo seen xel dal te seen njoor te xam ne liñ bëggoon seen doom yi de yàlla defal na leen ko ci ndax sëriñ bi moom képp ko yàlla booleek moom am nga taw feex waaye liggéeyal sëñ Tuubaa nga ne biir liggéey ba sa bakkan des ca loolu moom ndimbalul yàlla moo koy maye tawfeex ju kawe moo koy maye waaye yombul ñëpp kon ñoom gannaaw dañoo xëyaloon sëriñ Tuubaa yàlla suñu borom mi wàccee fekk leen wàccee leen ci toolu sëriñ Tuubaa ah ñooñu di sant yàlla bu baax la def ci ñoom li ñuy wax de xëy na dañ yàlla sunu mujj rafet daal ba mel na seenu mujj bakki sëriñ Tuubaa loolu rek lan ci mën a dolli waaye mujj ju rafet mënta ci toolu sëriñ bi ndax bari na lu ma koy wax ci bis boo xam ne dafa toog njëriñ ba guddi mu jekk-jekk génn waaxu ba ci ay armeel yu ne woon ci ginnaaw mu taxaw ci fekk bi mu ne tëll bunt bi am na ku jox jox satala gi mu ŋàbb ko mag ñi dañ daan def bu kenn day boof ci bunt ndax duñu xam bunt bu muy génne ko mu jox satala gi waxu ko dax di waax waaye mu topp ci satala gi ba mu dem ba wër armeel yi ba noppi taxaw ne ko ana kii kooku ku ñuy wax sëñ Omar Diba la mu ne ko man Omar Diba mu ne ko xanaa amel yi moom ñi ñu fi suul kenn ko mas a liggéeyal wala kenn ko mas a liggéeyal ko mas a liggéeyal nekku fi amel ñu ñu fi suul xanaa kenn ko mas a liggéeyal wala ku mas a liggéeyal ko mas a liggéeyal nekku fi suñu amoo du ne ko ah loolu dañ mbàkke kumba sama mu ne ko amel yi de ko mas a liggéeyal nekku fi ku mas a liggéeyal ko mas a liggéeyal nekku fi ndax seen yuuxu yi moo taxoon mënatumaa nekk ci sama kër gi waaye bi ma fi tegee sama tànk lañ leen jégal armeel yi sëñ Amadou ba mu xëyee ñam ko laaj dañ ko ne ay séeréer yu tuubut lañ fa daan suul xamuñ jullit buñ fa mas a suul kooku nag kon ku ko nekk ci tool toolam ba faatu fekk la ja ah sam xel war naa sa sa njott war naa rafet tuwa kon loolu ñu xam le ne ak càggante wéralu ko ndax ay machine na ko doon gas te gas nañ ko gasin woo xam ne tegu na ca yoon wa nga xam ne moom la seen xam-xam laaj ñu war koo def waaye nag yàlla miy dogal moom moo dikk ko dogalam muñ demutoon foofa it dem feneen nit demee na nu ne nit dem na ci lu ne nit teelu na fu na dem waaye dem ci daal dem goo xam ne fu mu demee ñu ne daa xëyoon ci toolu sëñ Tuubaa faatoo ci daal googu dem moom yàlla na nu ko yàlla tawfeexi la te mu yéex te ñu yàgg fi yàgg leen ñaanal di ma sow ñëpp di ma gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di jéggul